atum 2011 lañu ko tabb mu bokk ci saltige yi féete ci Yoff moom Mamadou Mbengue di ñu wax jariñu saltige ci biir village yu Lébu saltige ci communauté Lébu moom lañ dénk seeni bagage lépp lu collectivité bi def moom moo koy moo koy seet bu ñuy tànn nit moo koy seet bu géej gi aw ñàkkee jën sax ba xaw a jaaxal nit ñi si moment boo xam daf daan am jën dañ koy consulter ne nga saltige ñu ngi lay consulter nga xoolal ñu géej gi lu tax mu ñàkk jën moom mu dugg sa ay bagages am. saltige nag du ku jot doon ko ndax kat dafa tegu ci ay charte yu leer. suma ma bàyyi nag li tax mu mën a ne saltige ma ne saltige parce que yoof néegu ndey la fale boo demee Ngor paternel boo demee Wakaam boo demee douze penc yi pratiquement yoof rek ay fal ci néegu ndey sama yaay sama jarbaatu pàpp la nga bokk xeet moo tax suma ma bàyyi mën a dégg saltige man ma dégg saltige. léeg-léeg ñu gis sax lu ñëwagul. dañu am ay jinne am ay àndandoo àndandoo nag moo lay dimbali jinne moom kenn du wax ne du mbindeefu yàlla yàllaa ko bind bind doomu aadama bind malaayika ku nekk am mission booy dox ci kaw suuf jinne nag li ko yàlla may mooy daf lay jox ay information attention saltige waa soxna Marème Ndiaye woo na la bu tàkkusaanee dafay ñëw bu ko recevoir. dinaa wax ba génn si jinne loolu la lay defal. looloo tax bare na luñ leen di gis ñu génn addu jëmale ci askan wi di leen axtu. bu fekkee jën dafa ñàkk dañ mu seet dina am sarax yuñ ko wax ne que pourtant bu ngeen defoon sarax nangam sarax nàngam wala mool mu ne joxe 10 francs wala 5 francs wala 25 francs ñu dajale ko ut nag wala ut nag wala ut dugub ut nag suukar saraxe léegi jën am parce que jën damay wax ni. du ñak ci geej ba ker ba àddunay tukki parce que géej mbindeefu yalla ko binde ba pare def ci li mu si def jënd allu jinne la jën bo bëggee mu am jinni ngay négocier ba depo ak mo ba nañu leni tabbee lu ñuy sét la sétantal ko démé bay tan jaraaf wala ndey jëw sal digalé ñu wax xéet bi falu moy waneer yi mooy xonq bopp jox leen ñu ñaar ba ñett seen xeet ñu tànn ñu seet ñoom ñaar ku si ñoom ñett ñi ku si gën a ëpp bopp parce que ay nit mën nañ bokk ndey ak baay te du ku nekk li la yàlla may du bokkaax li ma may sama la saltige bi mooy seet lool ba ne diw moo gën pour pour pour pour dëkk bi. réeroo nag du ci ñàkk. des fois bu ñu tànnee koo xam ne waruñu ko tànn rek dafay am catastrophe mooy falu rek dee yi bari wala jën ji géej gi ñàkk jën. luñu duppé duppee ndëpp itam bari na luñu koy dégg naam sax ni mu daan amé lu bari soppeeku na ci mom mi di ñaawlu kuy rab japp rek des fois rab japp nit mu war fek dañ koy ndëppal mais xam nga légui dama wax li ci dafa bari folklore man maa ngi koy wax wax dëgg yalla ku ku kuy lebo, rek xam nga ne légui naka suñu mam yi daan def ak suñu baay ak suñu yaay yi amna na sopp ci ay école marché yi ak it yeneen nit ñi dañuy faral di daanu am lu leen di dugg ñu ne moom coordonnateuru téeméer ak ñaar fukk ak benn village yu lebu yi di ci indi ay leeral. ñun bi ñu nekkee xale xale daawul seetaan dëpp boo ko defee mag ñi dañuy jël ndom ba caw la nga départ ñibbi mais xale ko warul fekke parce bu nit di jël jinni ji mu àndal pour génne ko mu dem disparaître bàyyi ko mais bu fa xale yi raxee mën na leen topp léegi gisoo école yi yëpp xale yi di daanu ay rab. loolu bu weesoo saltige Mamadou Mbengue di ñaax way jur yi ñu gën a farlu ci seeni doom di ñaan itam way politique yi def seen kéem kattan ngir Sénégal amaat dal ak jàmm bi ñu ko xamee woon.